mbokk yi ñu ngi leen di nuyu te di leen dalal jàmm ci télévision Futur Média di am mbégte di leen dalal comme ni ñu koy defee ngoon bu jot ci soir de campagne tey jii ñu ci am gan euh, ñu ci dalal euh, ci kanam tuuti général Mansour Niang euh, dinañu waxtaan ci wàllu sécurité ak ci li nga xamante ni moom la candidat yi di proposé jëm ci wàllu karange xam ngeen ni loolu yëpp dinañ ci ñëwaat wàllu sécurité fépp ci Sénégal lan la ci candidat yi di proposé loolu yëpp nañ ci waxtaan ni ñu koy defee ànd ci ak Souleymane Niang euh, ak Barka Ba ce soir ngir waxtaan itam ci wàllu politique ndax actualité bi euh, jax na loolu actualité euh, moom la ñuy dem xibaar yi soxna Fatou dem ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu Chérif Diop. ay ca bisimilah ci xibaar yi mangook xibaar yi niñ ko waxee yu marax yi la ca gën a fës euh, Chérif Diop euh, bokk na rek euh, ci xalifa Sall mi nga xamante ne nag fi mu ne dëggal na rek ne dafay jàppale kon candidature bu Idrissa Seck loole nag gannaaw nag ba nga xamante ne rek nee na am na fu mu ko teg moom moomee nekkoon maire bu Ndakaaru beneen ponk ci biir xibaar yi tamit daanu yegg ba Touba Mbacké ndax ki fi nekkoon njiitum réew di maître Abdoulaye Wade kon ma nga Diop beneen ponk ci biir xibaar yi laa yi amoon euh, ci diggante étudiant yu école polytechnique bu ndakaaru ak yu UCAD mënee su caa setal nag kudd bu nu sukkandikoo euh, ci njiital amical bu étudiant ya étudiant yu ESP yooyu sax neenu tuuma yi daan teg ci ndoddal kudd njiital département ba nag weddina ba set wecc ndax nee na étudiant yooyu lal yu yokku la ñuy sàkku te loolee mënta ne ndax doole ja nekku fa euh, xibaaru campagne bi dinañ ci ànd ak Chérif Dia kon ponk yi gën a fësangoog bu ngeen taaxirloo tuuti ñu fam ma mangook kon Mohamed Diop la ñu fas yéene rek jokkool ca Touba Mohamed Diop nuyu naa la. maa ngi lay fay bu baax a baax soxna si. mangook euh, ni ma ko waxee euh, maître Abdoulaye Wade ma nga ca euh, Touba ndax mën nga ñu rek tënkal li nga xamante ne kon jot na ko faa yeggee ni kàddu gannaaw nag bi mu bàyyeekoo Ndakaaru. soxna Fatou Kiné kaddu sax amagul jamono ji ndax Abdoulaye Wade depuis 17 heures mu ngi ci diwaan bu Mbàkke waaye egseegul fi nga xamee ne Euh, diggante bi nag euh, lu mat fukki kilomètre la rek waaye mbooloo mu takku mi nga xamee ne ñoom ñoo génn moom moo tax kon euh, mu am jafe-jafe ngir egsi fi nga xamee ne moom mooy résidence Xaadimu Rasuul fi nga xamee ne xaalif général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké moo ngi ko fi xaar ancien président de la République Abdoulaye Wade kon ñu ko fi xaar mu am takkute boo xam ne am na ko ci ay mbooloo yoo xam ne ñëw nañ ñëw tert ko ngir tatagal ko mu ñëw ci biir dëkk bu sell bi mbooloo moom bokk na ci ay militants démocratique sénégalais ay karimiste ak ñenn ñoo xam ne ñoo ngi ci yenn coalition yi nga xam ne jamono ji ñoo ngi ci en lice ci présidentielle bi ngir nag ñoom ñëw ki nga xam ne njiitu réew mi ñu tertu ko bu baax a baax ah, waaye beneen euh, mbir mu jàpp ci tertu bi mooy ay quelques accrochages yoo xam ne ne nemmeeku nañ ko diggante ay partisans yu APR ci ginnaaw soxna maam Xari Mbàkke ak ñenn ñi nga xam ne ñoom ñoo ànd ak euh, le pap di soppi ah, jamono ji Wade soreetul résidence moom mooy euh, dal bi ñu war a waxtaanee bu ñëwee rek incha allah lépp lu ciy kàddu soxna ki Kiné dem ñu eggee ko ñi nga xam ne ñoom ñooy téléspectateurs yi. Euh, ci tënk rek dama lay laaj benn laaj bu mujj rek laatu ñuy euh, tàggatoo du ñàkk nga for ci niñ koy waxee rek weew béy wala boog nopp béy ne kàddu yi mu yëkkati woon ci ndakaaru am na ñu ko naqarlu ndax ñenn ci militants yi tamit naqarlu ñu ko foofu. waaw de façon globale nit ñi euh, euh, condamné nañ li nga xam ne moom mooy propos yi da nga koy gis sax ci li nga xam ne moom mooy seen réaction ci ñi nga xam ne ñoom ñoo seetaan si waaye ñoom xëy na peut-être dañu am rapport fusionnel bu ñu am ak seen digganteeg euh, maître waa Wade ba tax na xëy na kàddu yu mu yëkkati démb il ñuy en tiennent pas rigueur ba tax na ñoom ñëw nañ seet tertu si ko waaye xam naa ne njort naa ne xëy na kaddu yooyu ni mu ko yëkkatee démb ci sori bi xëy na bu jàkkaarlook moom mun na am teneur boobu ak euh, ni mu ko yëkkatee mun na ko bañ a defee noonu waaye daal jàpp nañ ne ñu bari fii ñoom ànduñ bu baax a baax ci kàddu yooyu nga yëkkatu naam ñoo ngi ñëw ngir tertu ko euh, ci diwaanu Touba bari si loolu fi nga xam ne moom mooy buntu résidence Xaadimu Rasuul ma ngoog ñu di ko jaajëfal bu baax a baax Mouhamed Diop doon jokkoog ñun ca euh, Touba kon nag euh, leer na nañ xalifa euh, Sall nee na moom candidature bu sa Seck lay jàppale nee na nag loole dafa am fu leer nañ fu mu ko teg moom xalifa Sall leeral yi dañu ci ànd ak Alioune Guèye. ak ci àddina bi mooy ñëpp maase nañu ne ci ñaari anam yooyu maanaam indi saafara ci jafe-jafe yi ak sàmmoonteeg sa kàddu njiitu réewum Sénégal. des na ci ginnaaw ci façon bu jéggi dayoo waaye du loolee nag la ñu doon euh, xaar du ñàkk ngeen am ko ci xibaar yi ci euh, nasaraan Abdoulaye Wade ni ñu ko doon waxee ak kaddu yi nga xamante ne jot na ko yëkkati euh, ci réew mi ba mu yegsee nag kaddu yooyu nag doonul lu nu rafetlu ndax bu ñu ko xoolee yee fitna la bu nu sukkandikoo nag ci imam Mactar Kanté kii di professeur Mbaye Thiam nag moom la mu jàpp rek moo di ne nekk di lakk di lakk ay carte électeur ak bulletin yoo xamante ne nag jëm na ci wàllu yoon ndax jàpp na ni kii di maître Abdoulaye Wade am na cër boo xamante ne tey jii yu baree bari waroon na koo jombal boppam Fatoumata Touré. maître Abdoulaye Wade daa ci génn def déclaration ñu bëri nag jàpp ni kàddu yooyu doonul li nga xam ni rek lu teggi ne la tey nag maître Abdoulaye Wade daa ci pare ngir xeex ba élection présidentielle du am ci réew mi ñu bëri nag jàpp ni loolee doonul benn yoon waree fam ñëw la waxtaan ak ku ko ne bu mënee convaincre ay nit na leen bu leen bokk am na ci droit mais nag dem ba naan xale yi nañu xotti seen carte d'identité nationale nañu dem ñu euh, këpp kees yi euh, loolu mooy nañu jàmmaarloo ak état bi parce que fu nekk nii du Macky Sall moo war a euh, fexe ba élection yu jaar yoon mais état sénégalais moo ko war a préserver kon loolu mu wax day yee fitna te moom warul nekk koo xam ne dafa nekk ci euh, wàll boobu. pour ñeneen ñi nag maître Abdoulaye Wade li ko wax tey mooy xeex ba nga xam ne rek jàmm ak dal dina am fii ci Sénégal. Abdoulaye Wade lu manti xel ci xew ci àddina ci réew mi ci politik li mu wax démb waru koo génne ci làmmiñam bu fekkee ne nag dañoo bokk réew mi mënuñu ko séddoo mënuñu ko yàq bu fi dara xewee képp koo xam ne kii da ànd ca wax ja bugguloo réew mi du dëgg ci yow. Imam Konté moom dafa jàpp ni ndawu PDS yi war nañoo jël seen matuwaay ba xam ni rek dinañ wane responsabilité daati gën a nekk ay patriote benn jeune boo xam ne da nga ne démocrate nga nekk magum jëm euh, waroon nangu ñu lay dugal ci ay njombe ngay lakk sa carte d'identité wala di di taal ay urne yi kenn xamul rawatina bu fekkee jullit nga. jullit da ngay am personnalité bul nangu kenn di la foye ñaar fukki at ak juróom benn muy xeex ngir jël nguur gi tey nag Abdoulaye Wade daati taxawaat ngir rek daati jëlee Macky Sall ci boppu nguur gi laaj bi samp mooy ndax rekk loole jar na muy daati woote fitna fii ci réew mi ñenn ci doomi réew mi àddu nañu ci kàddu yooyu tukkee ci fi nekkoon jiitum réew di maître Abdoulaye wàdd am na ñoo xamante ne rafetlu wuñu ko benn yoon waaye ñeneen ci sénégalais ñoom dañu jàpp rek ni ah, kàddoom yooyu dafa bokk rek ci la muy woote te muy ñu bañ a amal ay woote fii ci réew mi Kumba Amat Lo Mohamed Dieng maître Abdoulaye Wade yegg si Ndakaaru rek daal di wane boppam ki fi nekkoon président de la république du Sénégal. di woo ay ñoñam ñu daal di taal seen carte électeur waaye tamit bulletin de vote yi mu nekk lu sénégalais yi di ñaawlu. xalaatuma ko def déjà nous sommes des jeunes et que dañoo du élection yi du newul ni deux mille deux mille dix-neuf bi rek na yem. amaan na yeneen candidat yi nga xam ne ñu ngi ñëw si kanam ñun tamit bu ñu doyee dañ leen war a voté laat donc nga brûlé ko léegi après nga ay problème pour jotaat beneen carte électeur loolu franchement parler moom du solution xel xalaat ko daal. mu bëgg doomam nekk candidat mënul nekk mu ne ma sànni sama mu ne ma lakk sama carte pour moom je loolu du mu ko def fenn parce que loolu du du nit ko am xel du def loolu. rafetul rafetul te maa ngi woo sama mbokk yi maa ngi woo également jeunesse yi pour ñi. ñi ni bañ ñi bañ euh, dugg si yeneen erreur quoi. kii nag bëgg Abdoulaye Wade loolu di xam ne ni góor gi dooleem rek la bëgg wane. yaakaaruma ni moom dina jëf acte yooyu noonu da koy wax uniquement ngir nga xam ni nit ñi. xam ni moom am na doole policier yi xam doole surtout Macky Sall xam ni Wade am na lu muy pesé ba léegi nii nii. ñii nag di ñaax sénégalais yi ngir ñu gën a bëgg seen réew te di woo président Abdoulaye Wade mu dox ci jàmm ak dalu réew mi. ku ci nekk xam nga la bëgg xam nga fa voté. bu vote jotee nga dem dugal sa carte dem ñibbi sa kër toog calmement ki nga xam ne dafa war a gañe bu gañee ñu topp ko. sama doom la burul sama doom du keneen jaral na ma ma lakk dëkk bi mais kooku kenn du nangu. waxoon nañ ko ci ponk xibaar yi muy nag euh, laale gi amoon ci diggante étudiants yu école polytechnique euh, bu ndakaaru ak ya nekk ca UCAD ñu ne nag loole mënee ci saa mënee ci caa setal rek euh, kuddu ndax kon am na ca responsabilité nees koy waxee ki nga xamante ne nag moom mooy njiital kudd ga moom jàpp na ne rek loolee daal ta nekk waaye étudiants yi ñoom li leen gën a soxal sax mooy nanu fexe rek ba jàmm am waaye ñu taxawit ci seen i jafe-jafe ay sa tëggeey ba xeex yi nga xamante ne amoon na fële ca université boole woon nag ñii di étudiant ESP ak UCAD desoon na am ay leeral ci li ko andi président étudiant ESP bi nag jàpp ne rek loolu responsabilité autorité COUD yi la. muy loo xam ni ñaaw na am na ay nit yu ci jot ak gaañu ay nit yoo xam ni seen ay loxo damm na fi ay nit yoo xam ni seen ay bopp toj na fi mu nekk lu ñaaw a ñaaw dara tuuru fi te loolu warul am ay diggante ay étudiant te loolu li ko waral administration wu COUD la ak seen gestion bu irresponsable ak seen ay mauvaise information ñuy véhiculer tey autorité COUD yi ak autorité rectorat autorité ministère ñoom ñoo war a jël ak président de la république ñoo war a jël seen ay responsabilité parce que dina dommage tey ESP jóg di revendiquer ay conditions sociales yu meilleures di yegg ba fenn fi ba deret di fi tuuru ñaaw na ñu lancer nag message suñu mbokk étudiants yëpp di lancer message mbokk étudiants yi nga xam ne ESP lañu nekk comme ñi fi nekkul di leen wax ñu dellu ci dal que violence warul am entre ñun. ndongo yooyu nag di laaj dëkkuwaay yu baax. ñoom wax nañu ak ñoom dégg nañ liñ leen wax mais dafa mel ni tëx tëx loo fi am waaye tëx amu fi li fi am mooy. dañu bëgg étudiant polytechnicien loge te lool duñ ci dellu ginnaaw benn yoon bu yaboo ñoom ñu xam ko bu yaboo ñëpp xam ko lu ñu bëgg mooy ñëpp ñoom nag ñu ngi def ay discussion ak ñoom te ñoom xam nañ ni tey ñoom leer na leen am nañ possibilité régler situation bi kon nañ ko régler calme bi ñëw fii nii. gannaaw ba ñu waxtaanee ak autorité yi lee ñi ñaan rek wutum saafara ci seeni soxla. mu ngoog étudiant yu école polytechnique yooyu sax tuuma yi ñu doon teg ci kaw kuddu njiital département ba weddi na ko la mu xamle nag mooy étudiant yooyu ñoom ñu yokk seen lal la ñuy sàkk te loolee mënta ne ndax doole ja nekk fa ñu teewlu euh, Alifa Babacar Diagne kon njiital kuddu euh, ci micro Aïssata Gueye Ba. ren nag dañu am 4000 lits yoo xam ne dañ ko inauguré biñ ko inauguré ñu war ko séddale étudiant dakaar yëpp ñoom ñoo ko bokk. bi ñuy séddale am na ci ay pavillon yoo xam ne ña nga côté ESP ñun ñu xayma bi ñu xaymaa ñu xool ku ci nekk yow ñaata ndongo nga am ak ñaata nga war a am donte dañoo xayma buñ ko defoon xayma boo xam ne li tubaab di wax règle de troit mooy ku ci nekk li nga war a am euh, ci euh, ci néeg méngoog li nga am ci ndongo ESP kon doon loon am sax lu ëpp quatre-vingts lii beral nañ leen loxo jox leen 444 lits seen 444 lits yooyu mu ngi tegu ci seen 496 lits yi nga xam ne yoroon nañ ko daaw maanaam ci xayma ESP li mu am ren boo ko booleeg li mu am daaw presque dafa doublé jege na 90 pour cent démb man ñoom ak recteur ak seen directeur réunion nañ lu yàgg a yàgg nit ñi wax leen ñaan leen mais li ñuy laaj mooy ndongo bu nekk ESP am néeg. maintenant PSP li muy wax ñun gisuñu lu dul wax leen dëgg wax leen ni loolu ñu am loolu la ñu war a am wax leen ni ñoom amul lenn loo xam ne gënee nañ ko yeneen étudiants yi dafa am ñu ñu bokkal fii et il faut ñu nangu. mu nekkoon jiital kuddu ñu wax rek ci wàllu tàggat yaram ak fédération sénégalaise bu athlétisme moom nag fi mu ne nii la ko soxal rek mooy lu ko dooleel waaye tamit dooleel athlète yi nga xamante ne nii ñoom ñooy daw ñu ne nag loolee ngir mu sotti rek faaw kon centre africain bi nga xamante ni moom mooy yëngu ci wàllu yokkute ci athlétisme euh, daal di lëkkaloo kon ak fédération bi centre boobu nag jàppale ni Amadou jaba moom moo ko jiitee ñu teew lu secrétaire général bu fédération euh, sénégalaise athlétisme Bara Thiam koy waxee laaj Bara euh, ci micro Cheikh bu Diarra. bala ngaa nekk élite da ngay doon ndaw ñi lay former moo tax tey damay saluer suñu partenariat ak euh, El Hadj Amadou Diaba bi nga xam ne mooy diriger centre euh, AIDC e bi mook euh, le président Sara Wali. ci semaine bi ñu génn rek am na lu ñu liggéey bu baax ci côté partenariat ci côté collaboration di xool sénégalais yi nga xam ne ñoo gën a xarañ na leen di jëlee dugal leen ci centre bi. di leen accompagner pour man leen a former ba nga xam ne fi ñu tolloon dañuy yokk seen man man yokk seen xam-xam yokk seeni performance ba suba bu ñu génnee ñi mën a défendre couleuru Sénégal. ma nga kon ci kàddu yi rek la ñu xibaaru marax ma dellu kon bàyyi leen ak euh, Chérif euh, Diop Chérif. soxna yi ñu ngi lay nuyu di la jaajëfal mangoog ma bàyyi la rek nga dikk ak ñun ci li nar a xew ci xibaaru campagne yi. jërëjëf soxna ki Kiné Deme ci xibaar yi.